pour man euh, candidature jigéen war na mën a nekk waaw parce que boo ko xoolee am na ci yeneen sous-région yu mu am fii parce que gëm naa ne jigéen bon am na yërmande deuxièmement aussi ñooy suñu yaay pour man mu nekk ko wàññiwul dara peut-être nag am na si ñu koy gisee ci beneen côté ci ne fii bon réew la moo xam ne affaire tarixa yi daf fi am xëy na peut-être ñoom gis nañ ne jigéen warul mën a jiite réew mënta nekk parce que maanaam baaxoowuñ jigéen di jiite fii walla muy am kaddu Sénégal loolu maanaam culture amut culture boobu. c'est possible mën na nekk waaw jigéen mën na doon présidente jigéen di jàmbaar kay war nañ ko mën a jox réew mi. je pense que c'est pas une boo xamante ne c'est impossible déjà il suffit que ku jigéen ki ki bëgg a engagé mu am ay convictions. man de bu góor wax dëgg yàlla moo ma gënal. ndax bo sété sax ci suñu borom sax miñu bind sax jigen amna yo xamni ni ne suñ borom ci bopam d'accordo ci njitam jigen mën ta jité rew jigen mën ta faxe ba jité goor ah man de fakk naa dal fu goor mëna wara taxaw jamono ji jigen mën na fa taxaw. je pense que de plus en plus les femmes doivent intégrer le pouvoir. mané am rew jigen doon fa président mané xana goor góor naatu fa. mais ça dépend ci jigen ñi aussi. parce que amna façon jigen yo xam ak qualité jigen yo xam man gis na len ci réew mi ci ne tay buñu len joxone joxoon mi war nañ ko mën doxal. même buñ ko joxee ab ab section wala ab service wala ab direction mu mu jité ko ay problème kessé la fay am procédure yi day yéx rawati nag bu doon bu rew jigen mom dara am dara am gaawut. c'est pas que je suis féministe mais je pense que jigen lu mu dugg mom moy gëna nat et puis organisation bi day gëna a dox. lépp lu góor mëna def jigen mën nako def ba paré pour man jigen ni buñ ko dé def sax moy gëna a set. que ni ko góor yi di defee. te boo xoolee léegi léegi la plupart jigéen ñi daal ñoo gën a si matière yëpp daal ñoo gën a kii góor ni jigéen ñi daal ñoo ci gën a xarañ même en classe da ngay gis jigéen ñooy gën a participer. jigéen dafa bëri yërmande attanul benn pression bu góor attan fii. jiite góor ñi jigéen ñaa góor ñaa ngi jiite jigéen ñi jigéen bu jàngee ba jàngam dox mën naa jiite waaye jigéen moom bu dee julli baa muy lislaam mënut a jiite góor. jigéen nag diir daal mu dàq mooy. jigéen jiite góor ci jàkka ja ak jiite jigéen góor ca ca jumaa ja ak yenn kii ay maye sa yëg ay kii yooyu dafa am yoo xam ne jigéen la ko góor la ko féetalee mais pour jiite ci liggéey ak ci àdduna loolu ñëpp mën nañ jiite l'essentiel la ngay jiite da nga ko mën a assumer c'est tout. sans compter nag ñu teg ko ci affaire diine wala dara parce que xëy na peut-être diine mën na la permettre tey. jigen bu fekkee ne li ñuy ci mom ci valeur yu jigéen am na ci moom war na mën a jiite. jigéenu jiite jàkka jigéenu jiite jumaa. mbooloo gu bari jigen war faa jël kàddu góor taxaw mënu nek dafa am lo xam ne li jaru gudal en tant que surtout Sénégal gi ñu nek jigen du fi doon mos sa doon président mu tenet ah mais pourquoi pas bien sûr warna na nek jigen warna jigéen jité na mën a jiite jëkk bi. su ma sañoon daal góor mooy waaw moy comme li la wax rek. c'est parce que chaque jour rek jigen dafa wara top ci si ginnaaw

manam du bëgg ñu né jigen mo fi nek moo tax day bëgg a ko né tay ji duñ ne bu doon jig bu doon goor fi nek tay jigen ñep te ñun ñep la sax lu ñuy liggéey yep dañuy bëgg a dañuy wane né ko né tay duñ ñëw bu doon goor fi nek donc dañuy def plus que li goor waron def fu jigen mëna démé ba nek premier ministre mëna fa nek présidente buñu fi falon président jigen mën nañ ko def sax d'ailleurs ne serait-ce que pour changer un peu la dot <laughs> jité sax mom yërmande rek la <laughs> te jité yalla mo koy yalla mo koy fal ko mën na fal góor mën na fal jigéen ah jigéen ah boko ko yàlla defee it mu nekk fa de ndax yàllaa yor lépp carte yi moom ku ko gañ a jiite su ma sañoon jigéen mooy nekk prochaine présidente du Sénégal ku leen xeeb moom da nga da ngaa xeeb da nga leen xamul rek li may ci ay dong la ko xam nga aduna day dox waaw dara mën naa bañ a nekk temps ñu ba ci am population yërmande rek lañu soxla amul leneen yërmande fa am ci ci jigéen